ci lawsaa yi waaw ak kii imam Lays bin Saad ak ak Tabari ñëpp muy chia yi muy muctasile yi muy rawaafid yi muy murji ay ñu ñëpp ahlu bidaa lañu ñooñu nag ñoom dañoo dal di xam nga ñoom dañoo dañoo surtout xawaarij yi al manzilatu bayna al manzilatayni la ñuy professé maanaam nit ki bu defee bàkkaar bu mag te ñoom loo xam ne yonent bi daawu ko def nga def ko ci jaamu yàlla dañ koy tuddee bàkkaar léegi nit la koo xam ne kenn warul la roy ci moom kenn warul la roy ci moom ndax nekkatul jullit nekkul yéefar nekkatul jullit al manzilatu bayna al manzilatayni ci la nekk
loolu rapport bi waaw loolu donc moom kay rapport bu woyof bu ñàkk solo la sax. dëgg yàlla waaw ndax ñoom ba tey bu dee buñ delloo ci chia yi ñi nga xam ne ñoom ñuy isna affaire yoon yi ñoom dañu jàpp ne maasum dañu jàpp ne seen imam bi toujours maasum la te kon fépp mu ngi teew kenn warul doy ci keneen déwul waaw te ñun dàq nañ ko bismillah mu ne sunna sunnaale fat na maanaam julli wa inni amoo di donte koj gàdd ñeel na koj gàdd itam dégg nga mooy nitu gëti daal bu musaafirin ak aji tukki koo xam ne nekkul ci fa mu dëkk la ngay jidda koo xam ne tarul sayruhu doxam ba su naan nañ ko di suufi shams ñu bu ñu jàppee jant maanaam bu jant muuroo mu ngi su naa rakkaataani ñaar rakka yoo xam ne buy jàng sirran ci yel lay doon bi ziyaadati qiyaamay ni ànd ak dolli ñaari taxawaay waru ko ay ni ñaari bu ko rakkaataani rakkaataani ñaar ñaar ñaar lexu suufi xabarin ngir muuru waa kan na waa firi jëhran bi daa jëm ay ci lutum boole masalan salaatul kusuuf yi sunna la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan def xam nañ ne jëriñ jëriñul dara jëriñal saahir du nit ñi gis waaye rek lu yonente bi sunna loon la sallallahu alayhi wa sallam wala maa yi ne surtout Babal Xasaan yi ki nga xam ne bu jant jengi ko mu digle julli bu jant sooyee mu digle julli bu jant bu bëgg fajar feqee mu digle julli mën naa digle julli bu ñu jàppee jant wala bu ñu jàppee weer ndax yooyu yëpp dafa li ko waral illa yi dafay ay secret secret yooyu wala maaw yu dugg nañ ci wet bu nekk palamtu am ñu ne ñi nga xamee ne bu mbir mu rëy xewee mu sunnaal nga ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun alladina ida asabatu musibatum qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bu mbir mu lay yéem itam moo xam ne nii benn ragal nañu mu rëccal dara ci sa ngëm wala mu jaaxal la nga gaaw a dellu ci yàlla bëgguñu daal jullit dara dox diggante yàlla ba nga xam ne bu jaaxlee bu tiitee bu waaroo bu dóomee bu ko dara dalee mu dellu ci yàlla ñu ne nag ki nga xam ne nag dafay digle julli ak tudd yàlla ngir ay waxtu jàpp jant lu bees si la ñu bokkalum li ñu aada woo woon kon mën na fa digle julli julli jant nag wuuteeg julli weer li mu ko waxee ñaari rukkoo ñaari sujjóot ñaari taxawaay amuñu wala ma woo gisuñu benn ilam duñu taabut ñu ko sallallahu alayhi wa sallam daawoon defee rek ñu sunnaale ko noonu di ko ni defee ñu julli woon ba sëlmi jant bi continuer ci njàpp gi tax ñu julliwaat bu faatee julliwuñu ba jant bi jàpp gi tamit du tax ñu baamu wala ñu julliwaat wala ki mu faatoon itam du tax mu baamu ko kon taabut la ñooñu xamuñu illa bi ñoom nag mu ne nag doonte amut yi nga xam ne koj gàdd maanaam nga xam ne dëkk bi ngi fi dëkk ca ay kër yu sori nga xam ne jumaa waru ko ko wala koo xam ne dafay tukki ba wàññi julli sax ñu sunnaal ko ci moom te musaafir boo xam ne kat doxam tarul sunnaal nañu ci moom mu julli li ci suufi shams rakataani rek sirr li ziyaadati qiyaam qiyaam yi ni wa rukuu'ayni wa rakataani rakataani defe naa ne waaw rakataani rakataani wala suufi qadar yi defe naa risaala sax misaal loo xam ne julli yooyu ñu koy defee julli rukoo bu yàgg ñaari yoon taxawaay bu yàgg ñaari yoon sujjóot bu yàgg ñaari yoon tout ce foofu tout ce yëpp lu jaxlaa fi ne it expliqué dañu koy waral am na waa fi ñu jaxal bi laa jëmee ci lu dul boole nag benn bu ci ne ñaar ñaar waaw ñaar ñaar ñaar ko ñaar ñaar rukoo ñaari sujjóot ñaari taxawaay waaw dégg nga mu ni nag bilaa jëm in ci lu dul maanaam dajale mbooloo ñu ñuy ñi ñi di ko julli ci ci ci bi weer njàpp weer lan daje bi xam nga daje bi tudd yàlla sax nag te bañ a julli sax moom moo gën a bari te julli li ñu sunnaal nag foofu sax ila zikrillahi nag dafa loolu ñooy moo ne daganal nañu itam kon tudd yàlla fi mu wax ne waaye ba tey itam xadis boobu mujj am na ay coow bi Seydina Ibrahima doomu yonante bi faatoo waaw te ñu jàpp jant bi te jullit ñi ne jant bi dafa maanaam daal dafa participer ci déy bi dafa am naqar ba ñu ba muuru noonu mu ne ash-shams wal qamar ayataani min ayatillahi la yankasifaani li mawti ahadin wala li xayaatihi walakin fafzaxu ila zikrillahi ñee nag fafzaxu ila zikrillahi léegi julli rek la si jublu ñii nekk xankaay bu dul julli it mën nañu tudd yàlla loolu mën nañ ko kileel noonu mu ne nag kon bu fekkente ne kenn du kenn du ñu duñu daj du ñu woote ñu daje julli mu ne sib nañ ko naka noonu sib nañ ñu jullee ko ci it ci jàkka ji kenn ku nekk rek da ngay julli foo ko mën a jullee rek mu daal ne kon moom li ba soppee fat na bi masjid yi ci jàkka ji ban la maanaam ñu gudd yooyu daal fi baqi fi fi qiyaamati ci yeneen taxawaay yi ci des maanaam rakka bu njëkk bi kon ba jàng baqara lañ gën a sopp rakka yi ci des nag saar yooyu ci topp boo jàng suuf nisaay wala wala imraana wala yooyu boo si jàng rek waaw wa waxun sopp nañu itam waare ba daxaa fii moom fii mu ne léegi tey wan diru bil masjid yi ndax moom xusuuf ak xusuuf yëpp loolu la waaye moom déedéet ku suuf rek waaw xusuuf rek la waaw ku suuf rek mu ne
kon xusuuf moom fi leen safaan bu moo ci gën waaw safaan bi bañ a bañ a dajaloo sax kenn ku nekk sa kër boo ko mënee def sirran itam mu gën mu ni waxum sopp nañu waar ba adaha ca gannaaw julli gi mun nag war a kaa rukoowat na maanaam ci yàggaay kal qiraati naka yàgg jàng yi ni muy yàggee soit ak suratul baqara lay mel noonu noonu itam moom lay rukoo wa sajada su jóotu na ba tey kar rukoo yi mu yàggaat moom it mel na rukoo bi rukoo bi mel na taxawaayu jàngee
ndax fii liñ jublu maanaam beneen mbir la wala jàpp na rek maanaam jàpp gi yooyu defal di yàgg pour jàmm yàlla bi ànd ak moom wala ci yàggaay wala lan lañ jublu waaw ba tey comme taabud la xamuñu sax ndax xusuuf bi wala kusuuf bi wala déet waaye digal nañ ni ko indal xusuuf wala indal kusuuf bi ñi nga xamee ne nee ñu tisbaar bi maanaam jant bu jéng ko jéng ko jant bi taxul waaye foofa la ñu digale ñu def ko fa ñu def ko julli bi
waaw moom la ma laaj mooy jàmm yàlla bi nga xam ne farata la sax moom yàggul yàggul waaye julli moom yàggal bu ko yàggal moom taabut la nag taabut mooy loo xam ne ulama yi xamuñu illaam aarifoon yeeg siddiqoon yi ñooy xam illaam te duñ ko bind ndax kon mu wuteeg daf mel ni dañu bëgg a yoonal yonent bi di yoonal ñu yoonal ñu ñu ko te seen itam gannaaw yi farata la yoo xam ne moom juróom cinq fois par jour te lii moom waaw waaw dafa ye- ba amee mën na bay am ay bu dee kusut moom mën na am ay ati at du amaat moom yàggaay bi moom daanaka ci wàññi day yaakaar yëf yooyu du lii rek du du sunna ah du ñu rek gisoon nañu ne saa xam daan ko def daan ko kon def waaw noonu lañ ko daan def waaw waaw moo tax topp ko sunna la kon lu mu daan def rek te saxoo ko sunna la lu mu daan def te saxoowu ko diglewu ko lu mu sopp la ndax mën naa am am circonstance yu taxoon ñu def ko fekkee nag def nit def na ko ci teewam te waxu ci dara tey mën na ko jàppe ni sunna taqrib la mu ne waxtaa waxtam kal iidi gis nga xam nga kusuf mën naa am bu jant fenkee rek waaye waxtu ay dagare bu dagare naa fi lañ koy def kañ waxtu da ko def nañ jot rakkaatu rakka bu koy ci ruko ba boo fekkee ruko bi rek am nga rakka ba waaye mu ne wala tukarriru déef mooy li ma waxoon déefu ko takraar maanaam julli gi ko ba noppi jant bi continuer ñu jàpp ko nga dellu di ko julliwaat loolu mooy xamal ne taabut la wa in jalat su fekkee ne wuñu ko nag léegi fi asnaiha ca digg julli ga wala maa ngi daal di coow ndax ku fi itmaat itmaamiha musik matalam kan nawaafi li ni kenn naa fi la rek wala moom kay duñ ko matal dañuy dal di bàyyi ndax dañ ñëwoon bu waxtu wu ñu jàppee weer wi wala jant bi na ngeen julli te kon te loola dañ ne kon danoo war a bàyyi xaw laa ñu am si ñaar wax mu ne wax xut di ma de kii dalee fat na fatul farata boo xam ne xëy faragalee fat na fawaatuhu ak faatu moo jiitu lépp ci xeeti julli yëpp su ma topp bu farata bi yooyee ku sooful julli gent bu julli yi dajee bu farata paasee julli gent muuru gent moo ci topp su ma iidul iid soog a ñëw xam ne kon julli muurum jant bi moo jiitu iid wa oxira yeexale yeexale yeexee falak yeexee fat na yeexale waaleykum salaam yeexale fat na listisqaa u julli baaw naan li yow min ba bés aaxar beneen fekkente ne léegi dama am kusuuf am iid wala yeneen yeneen yeneen kii yeneen julli yoo xam ne yu ñu sunnaan la ñu waroon itam julli baaw naan mu fixé woon ko xamaguñu daañu jàpp jant bi wala dé léegi ñu jàpp jant bi julli waxtu iid jot ndax ñooy jotandoo julli kusuf bi ak julli iid bi ñooy jotandoo te fekk ci waxtu wala mu waroon julli baaw naan léegi ñu daal di jàpp kusuuf ak iid wacc baaw naan bu beneen bis mafhum faslun waaw fii li kii ñu ne suma suma suma iidu waaw xam nga suma gi léegi moom
li tartib bi waaw bi saali maa taraaf waaw waaw léegi dañoo waxoon ne maanaam seen takk nii la al witru suma iidaani wal witru akadu al mashhur waaw waaw al witru wala iidaani wal suuf wal suuf waaw ni ni lañ leen tarti boobu waaw waaye nag
fii nag moom du li may wax toujours wala maaw yi nit ki dafa war a topp seeni wax rek ba xam ko waaye nekkul ne kenn sañ na ci xëcc waxi moromam ne ko jub nii gis nga même yokk wàññi julli gi ñu doon wax am na fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam fukki fan ak ak juróom-ñeent waaw waaw mu di ko am di wàññi di ko am di ko wàññi toujours bu ko weesoo nag mu soog a matal waaye yu ci yiwum yu mel noonu moom day fekk ay jamono lay doon waaye lëm mujj jëfee moo gën a dëgër lëm mujj jëfee lu gën a mu ngi gën a am na mu ngi te xam ak sëdd waaw
lëm mujj jëfee moo gën a dëgër du tee sax xëy na ña jàpp ca lee nga xam ne saxaabi bi jóge fii ci Madina bàyyi fi lii mu dem ci benn réew jàngale fa loola lam fi bàyyi woon ñooña sax ca buñ demee ba nga xam ne wees nañ jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi nga xam ne ci taabi'oon yi la beneen taabia solo lii ci saxaaba beneen taabia solo lii du ñu mën xëy na du ñu xamante sax ban tawqiit bi maanaam datu lii xew ak lii xew kenn ku ci nekk da ngay da ngay tabax sa sa ay masala ak say afkaar ci kaw loolu ci ko xadis bi da jot waaw waaye ku suufun gannaaw moom xam nga sunna yi bu fekkee ne dafa am bu gën a feddali ko moom moom moo jiitu wétu moom dafa feddali ko dafa gën a feddali moom mel ne ngénte ak tabaski waaw bii di sunna kese bii di sunna suñ feddali sunna suñ feddali say jiitu it moo jiitu boo amee benn xar war koo tabaski war koo ngénte xam naa ne fii moom kenn du ko fi ñeme dañ naan ngénte woon jiw de ngénte woon li ñuy wax mooy li nga xam ni ay julli yoo xam ni dañoo bokk ndox tu ñu leen war a def.
waaw ban moo ci moom Jiitu.
la ci war a jiital jiital daal. defe naa ni ñu tam bokkul ak ñoom.
ñu tax moom bokk nañu waaye dafa wax ne bu ñu bu ñu teewee rek. bee ji bee bee la ñu war a ji dañu wax ne moo tax fii tudd fi witar.
dugg ko tudd parce que dugg ko. maanaam ndax dañuy bu dajee bu ñu tuddee ku yi suuf mën nañoo rek teewoon waaye wi dafa moom te waaw bu ñu teewoon tuddee ku suuf rek witar moom waxatuñ ko.
waaw itam maanaam loolu mooy seen toftale.
maanaam toftale bi la doon wax ba àggsi ci ku suuf toftale bi mu ne ko waaye jiital bi léegi ñu jiital di ci ku suuf waaw.
waaw maanaam jiital gi ñu jiital kusub léegi dañ cee teg ay ayit waaw te ban seetee ci dañ ko jëkkoon waxee léegi ayit lañ jiital Ayit lañ jiital.
waaw ndax ku suuf li ci gën a bari ci jamono yi mën na nekk waxtu fekk jant bi sow mën nga ko def mën na tàmbalee lu ci tisbaar une heure ak yooyu deux heures fekkee ne waxtu jumaa la fekk na jumaa jàpp nañu ba noppi waaw waaw kooku sax moom farata moom waxuñu ko waaye bu dee bu dee ayit ku suuf bi mën na fekk ñu julli ayit ba noppi mën na waaw mën na fekk itam mu jiitu ay waaye néew na loo xam ne li sax du teel a tàmbali ku suuf ñu dafa ñu wax ko waaw tënk la rek ah tënk yi tënk yi ñaari dër diir wala kii xabaab la koy génne dégg nga kon nag jullik kii ku suuf mu ngoog